waaw di am mbégte ndax boo xoolee lii ay doomu Senegal ñoo fi donc création emploi am na mais mais monsieur le maire de Malikunda, nena na ma sànq waaye wax moon nag ñaatal nag waaye nee na ma wax dëgg yàlla waa Riu jox nañ ko chèque bu duuf ci maire bi ndax entreprise mel ni bu jëmee sa commune liggéey bi day day yok. boo xoolee xale yi également noonu waa sama mbokk yi dëkk Pointe Sarène ñoom euh, Mbaye Sarr ñoom it noonu gis nañ seen bopp ci mbir mi donc li li ñu naan externalité positive yi baax na kon dam ci am mbégte ndax man bu Sénégal yi béggee rek man bégg naa kon lii royukaay la kon ñeneen ñi nañ nañu roy lii ah, parce que coow li yëpp mooy dangay ñëw gis la xam ne dañ def lu baax moom roy ko moom loolu moom moom la ñuy moom la ñuy ñaax ku nekk waaw xam nga euh, hôtel moom ay privé ñoo koy saytu ndax gouvernement du tabax hôtel waaye li am mooy projet yooyu nga wax daje naa ak ak privé yi maanaam Club Med daje naa ak ñoom par

day nekk loo xam ne stimulateur la maanaam am na ñoo xam ne xëy na amal nañu suuf di xaar waaye lii bu tàmbalee ah yaakaar naa ku ku liggéeyul moom di nga di nga di nga perte. non jàpp naa incha allah bu ngeen ko seetloo fi ak mois de mars dina am yeneen projet yu mag a mag yuy samp fii ndax kat intérêt la doon ndax bu ñuy commencé avec 500 chambres nekk club groupe yi gën a mag ci àddina bi di indi ay touristes yaakaar naa ku nekk di nga di nga ci mën a bëgg a barkeelu te ñu gis la lu am solo la. di wax sunu ndaje bi ñu def fii tey ci Saly Euh, dañu war a euh, eggali benn liggéey bu am solo boo xam ne président Macky Sall daf ma ko dénkoon bi may jox ministère bi nga xam ne moo saytu tourisme ak transport aérien mu ne ma ma liggéey xalaat pour naka la ñu mën def ba dooleel suñu tourisme waaye aussi suñu transport aérien ñu gën ko ñoŋal ba Sénégal am place bu mucc ayib ci biir Afrique sowu jant mais également ci biir àddina bi. loolu waral euh, xalaat nañu ci lu mat ñaar fukki poñ ak juróom yoo xam ne. mooy nekk sunu wéeruwaay pour liggéey bi ñu war a def ci euh, juróomi at yi di ñëw ci wàllu tourisme dañu fas yéene incha allah wéeru ci ñetti ponk yu am solo bi ci njëkk mooy li ñu tuddee naan euh, ci nasaraan patrimoine maanaam la nga xam ne Sénégal am na ko te yàlla jagle ko ko ci wàllu euh, patrimoine ci wàllu cosaan ci wàllu aada am na loo xam ne dañ koy faral sàggane souvent ci wàllu tourisme te tourisme la muy le tourisme religieux tey bo xolé sunu kilifa diine nga xamné ne tabaar fakàll ci wàllu jikko euh, adduna yëpp mën nako cédé bo démé fi bu melni ni réew yu mel Gabon mën nga fa def tourisme religieux bo démé réew yu melni nigeria mën nga fa def mat 60 millions ay Nigériens yo xamné fi lañuy ñëw fi ci Saloum am fi sen ay kilifa diine mais ñoñu di ñëw mais ay hommes d'affaires lañu dañuy tukki dañuy investir segment bobu Sénégal dina ko dooleel bu baax a baax bo baax également li tuddé tuddee manam lepp euh, lépp lu jëm ci walu conférence yu mag yi réunion yu mag mag yi té nga xamné entreprise yu mag ñoo koy organiser ci àddina bi tay bo jëlee réew yu melni Kenya ak Rwanda conférence yu mag mag ñom ñoo koy organiser loolu dafa am doxaline bo xamné également dañ ko wara def manam dem jëliko ko fa mu nekk tey entreprise melni Google mbaa Microsoft mbaa Banque mondiale ñom bu ñu dajalé ay nit ay ñetti junni nit la ñuy dajale ci ab réew lu mat ñetti fan ñeenti fan lolu dafa am solo également ñu ko maïs ci walu tourisme segment bu aussi nañ ko dooleel boo jëlee également ci walu cosaan ak ada Sénégal tey amna na ñaari euh, bërëb yoo xam ne dañ ko classer ci UNESCO comme bërëb yo xam ne àddina yëpp da ko mën a bo boo demee tey Toubacouta am na fa bërëb boo dafa bok ci les plus belles baies du monde mais ba légui Sénégal valoriser ko namu waré donc lolu aussi nek na loo xam dañ ko gën a fësal ba euh, Sénégal gis ci boppam may fàttali ne tourisme moy réew day jël la gën rafet ci jikkoom wane ko ci àddina bi ndax tourisme ci wàllu commerce exportation la maanaam da ngay jaay bitim réew voilà balaa ngay jaay mbir bitim réew yow da nga ko consommé ba pare tey waa Sénégal xaaruñu tey ñu defal leen stratégie pour ñu jógee fii dem Tivaouane ba dem Touba loolu tourisme la kon loolu la ñuy gën a dooleel ci wàllu promotion ci wàllu ànd ci ak kilifa yi pour que ñu gën ko ñoŋal boo jëlee ko mel ni Léopold Sérère Senghor koo xam ne 160 réew ñu ngi koy at bu nekk di ko euh, célébrer mais ñun war nañ mën développer tey des stratégies yoo xam ne euh, kilifa yu mel noonu mën nañ gën leen ndax kat am na ñoo bëgg nañ ci yeneen réew yi donc tourisme loolu la. loolu mooy patrimoine manam lepp lo xamné Sénégal amna ko ci wàllu euh, cosaan ci walu gàncax ci walu site ornithologique manam fa nga xamné euh yu melni ni euh, juuj yu melni ni yu melni ni Toubacouta loolu dañ koy fësal ñaarel bi moy expérience manam xéetu tourisme bu bees bi légui euh, nit ñi dematuñu rek pour nelaw ci plage ndax plage daanaka légui ñi daan bronzé mën nañ ko défé yenen technique mais li am solo tay moy nit ñi dañuy dem pour def voyage intérêt manam tukki tukki bo xamné dañuy gis lo xamné euh jéxal na leen te tey Sénégal dafa nek réew mo xamné dafa mëna jox tourisme ay points yu bëri mën nga tay am bolé plage waaye mën nga ko bolé également def ce meeting.

keroog dama wax acteur touristique ne leen baax nañu xool jamono yi ñu toll ñiy tukki naka la ñuy tukkee tey mën nga jël sa téléphone portable réserve sa billet d'avion bind fa ngay dëkk te doo jaar ci benn agence de voyage ñu tuddee ko digital maanaam informatique bi internet bi dafa nekk loo xam ne ci xeetu fësal mbir lu am solo la tey yéen ñi tas xabaar tey seen information Dakaractu yéen ñi ci digital nga nekk loolu dafa nekk secteur boo xam ne bu am solo la ci tourisme donc am nañu lu ñu tuddee Sénégal digital te incha dañ ci liggéey ak ministère bi saytu loolu mais également acteurs yëpp pour que sénégalais ba nekk fële ca Londres mbaa ba nekk fële ca Amérique mbaa ca Caraïbes mbaa africain boo xam ne fële nekk. mën na jot offre promotionnelle Sénégal pour ñu nekk ko yow kat boo ñëwee Sénégal mën nga dem fii dem fii dem fii pour boo bëggee gis sa cosaan donc yooyu ay xeetu promotion loo xam ne incha allah dañ ci liggéey ñaareeli pàcc bi nga xam ne moo nekk ci stratégie bi ñu bëgg a euh, dëgmal euh, pare tey te war ko jébal njiitu réew mi mooy transport aérien maanaam Sénégal connecté fexe ba Sénégal d'abord ci biir Sénégal sunu aéroport yi ñu yeesa leen xam ne président Macky Sall jël na dogal bu am solo pour ñu tabaxaat aéroport bu Ndar aéroport bu Ourossogui bu Kédougou Euh, bu Tambacounda ak bu Ziguinchor ci anami njëkk ensuite nañ ci boole yeneen juróom-ñetti aéroport ba mu nekk fukk ak ñett aéroport yoo xam ne incha allah dañ ko tabax Sénégal loolu li ci président Macky Sall jublu mooy fexe ba circulation biir Sénégal maanaam fexe ba yow booy déplacé wu tey di dem Matam doo def juróom-ñaari waxtu mbaa juróom-benn heure ndax jamono ji dafa nekk jamono yoo xam ne jamono vitesse la kon loolu dafa nek ci stratégie manam fexé ba le Sénégal connecté intérieur loolu tamit day développer tourisme day tax ba Sénégal wa Sénégal tey boo nekkee Ndakaaru ba nekk mbaa nga dëkk fi ci Mbour mën nga dem Kédougou dem seetaani le pays Bassari mën nga dem également séti euh këru Aline Sitoé Diatta feulé ci Kabrous donc yooyu yëpp dafa nek xeetu liggéey yo xamné transport aérien mo ñu ciy dimbali. transport aérien bobu nak dañ ci wéeru ci Air Sénégal gis nga né Air Sénégal mu ngi ubbi buntu yu bari bari tabaar fukkal loolu dañ ci djiblu pour que justement tourisme ñu ko développé tey. bu ñu ubbee Air Sénégal Dakar Lagos Abuja day may également ëllëg ñee jóge Nigéria di ñëw fii ci Medina Baye ñu mën leen a organiser également pour ñu nekk acteurs touristiques yu am solo bu ñu ubbee tey Sénégal Dakar Washington day tax suñu mbokk noir américain yi nekk Amérique ñu mën leen a indi fii ci Gorée pour ñu mën a xool seen cosaan ak seen aada ak yeneen destination donc Air Sénégal dafa am rôle bu mag a mag boo xam ne ko jouer ci euh, transport bi nga xam ne def donc boo jëlee Air Sénégal boole ko ak suñu aéroport régional, yi lëkkale ko ak AIBD international loolu dafa nekk jumtukaay boo xam ne buñ ci wéeroo ci wàllu tourisme Sénégal stratégie bi ma leen wax muy fukki poñ ñaar fukki poñ ak juróom yoo xam ne incha ko tëral pour que suñu réew place bu mu war am ci wàllu tourisme ak transport aérien mu am ko ci anam boo xam anam bu buy créer emploi lay doon anam buy dooleel suñu kam kam lay doon.